xamante ni euh, def nañu réunion CLD spéciale pour waajal ziyaara njabootu Thierno Djibril Ousmane Ba fii ci Bambilor def nañu réunion bi service yi nga xamante ni ñoo war a aju ci wàllu organisation bi ñi nga xam ñoo war a intervenir pour la réussite gàmmu gi ñëpp ñëw nañu moo xam service yi nekk fii ci arrondissement bi la wala service yi nga xam ne ni niveau départemental la bi ñu ñëwee déglu nañu porte-parole famille bi muy euh, Thierno Malick Ba bi nga xam ne wax na lépp loo xam ne soxla nañ ko ci wàllu taxawaay pour gàmm gi waaye itam yaatal na ba jox ay collaborateur yi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey ñooñu wax la nga xam ne moom la ñuy xaar ci administration ci wàllu organisation ziara bi ba ñu noppee dañu jox kàddu chef de service fi toog kenn ku ci nekk ci niveau jël engagement pour xam le ne lépp lum war a taxawee daan ko def dana def lu ëpp loola ren bay ci wàllu organisation lépp mu ci ayib yeneen yi nga xam ne ay yeneen préoccupation la te xëy na peut-être dafay war a jëm ba niveau national loolu incha allah rabbi danañ ko tënk ci compte rendu bi ñu war a defal sunu kilifa euh, le préfet du département de Rufisque bi nga xam ne moom itam incha allah dana woote daje bu gën a mag bi pour gën a saytu taxawaay yi nga xam ne war nañ ko taxawee pour mbir mi mën a mucc ayib. la ci aju da nga xam ne dem na ci niveau national euh, service yi nga xam ne ñoo ko war a doxal ñoo ñëpp daanu leen saisir ba lépp loo xam ne administration ci ndiganu kilifa yi war na ko taxawee ci wetu comité d'organisation bi pour que ñu mën a taxawal gàmm goo xam ne gàmm gu mucc ayib la lépp incha allah rabbi dañ ko taxawee ba lépp mat incha allah rabbi. alhamdulilah ni ngeen ko waxee léegi rek ci teewaayu sous-préfet bu arrondissement bi Mouhamadul Bachir Ndaw ak chef de service yëpp ak adjoint am incha allah ñëw nañ ci kër xalif bi Thierno Ahmed Thierno Jibril Ousmane Daoud Ba euh, ak ci teewaayu comité d' organisation ziar bi incha allah euh, euh, lépp loo xamante ne nii ziar bi doon na ko mbébét at yi weesu ak comité bi comité d' organisation bi di ko mbébét at yi weesu mbébétaat ko ren waxtaane nañ ko sunu biir waxtaane nañ ko ci service yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ŋànk moom la état bi yor fii ci diwaan bi Euh, ñoom ñëpp tamit ku nekk engagement yi nga doon jël euh, at yi wees yëpp jëlaat nga engagement yu ko raw ren donc ala kulli xalin euh, réunion bi jaar na yoon sunu xel dal na ci li ñu dégg ak li ñu gis incha allahu rabbi wolof daal li muy wax rek cin bu naaree. neex su baxee xeeñ kon am nañu yaakaar ne incha allah ren daal dina dàq déwé daaw dàq daaw jéeg dàq at yi weesu yëpp incha allah ci niñ ko déggee bu soobee. xalif bi waxee dégg ngeen ko at bu nekk nee na léegi dana ko tuddee benn ci kilifa diine yi mooy xalif généraux yi nekk ci Sénégal ren nag mu ngi ko njëkk tuddee Cheikh Mahamadul Mahi Niass ibnu Cheikh Ibrahim Niass ala kulli xaalin xalifatul fayda atijaniya ala kulli xaalin incha allah. rabi daraja gënul mak lolu jël bés bu tollu ni tuddé ko kilifa gu tollu nonu ci aduna bi ci Sénégal Cheikh Mouhamadul Mahi buñ ko ko tuddé ku nekk xam na ne incha rabbi Madina bay lañ ko tuddé ku nekk xam na ne Cheikh Ibrahim Niass lañ ko tuddé ku nekk xam na ne buñ ko tuddé Cheikh Ibrahim Niass Mawlana Seydina Cheikh Ahmad Tijani lañ ko tuddé yantou bi sallallahu alayhi wasallam sax lañ ko tuddé ala kulli hal ndax liggéeyam ci biir Sénégal ci aduna bi liggéeyam ci fayda tijani way liggéeyam ci tijani ak ci ak ci l'islam ak ci jokk mbokk ak ci defar ak ci rafetal donc loolu moom vraiment ala kulli xaalin kuy jullit rek kontaan na ci adduna bi yëpp aussi incha allah am nañ ci mbégte incha allah te ñu ngi xaar sunu gan googu ci jàmm ak salaam di ko teeru di ko tatagal incha allah thème bi aussi ni mu ko waxee xalif bi nee na dellu ci yàlla la incha allah delluwaat ci yàlla dellu ci yàlla yàlla wax na ko yàlla moo ko njëkk a wax ci alquran آه، يالا سامونه ففروا الى الله اني لكم منه نظير مبين جوغلن داولن جملن سي سن آه، ان شاء الله ربي نين جار تي صلى الله عليه وسلم يونت بي وون لن يون بيغا خامتاني ني باخ مو سل بور اگ تي kon egg ci yàlla nak moy sa xol ak sa xel ak sa yaram yep delu ci yàlla yàlla sax moko ko njëkk yontu sala sala moo ko njëkk wax ci alqurana mu ne duñ ko laajee lan mooy ihsaan mooy ponk bi gën am solo ci ci ponk yi nga xamante ñun ahlu suuf dañ koy wax mu ne fa fa fa amal ihsaan an taabudallaha ka tarahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka ah, ihsan daal mooy booy jaamu yàlla nga mel ni yow yaa ngi koy gis su fekkee yow def nga ne gisoo ko moom mu ngi lay gis wala nit yàlla yi dëgg-dëgg ñi nga xam te dañuy egg ci yàlla ñu ne boo fi nekkatul da nga gis yàlla sikki sàkk amul ci loolu ndax ku fi nekkatul ku nekk dañuy wax ne ñu ngi koy delloo boroomam ñu ngi koy yóbbu ci yàlla ñu ngi koy rob wala nangam nangam donc ku fi nekkatul rek gis yàlla mu leer nañ sikki sàkk amu ci donc loolu dellu ci yàlla waaw léegi nag yàlla waxaat na beneen aaye mu ne آه، من يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يو يو باسكو نيت كي اوسي اي اي ستاسيون غاي تولو اي اي مراتب لا دونك جورومي مرتبه ييغا خامتاني مولا يوبو سي الله موي عقل نفس جسم روح سر جوروم يي il faut ñu défer ko tagat ko bi ci yalla tuddu nak ci alcorane ben bi mu ci tuddu ci abi ya ayatu an nafsul mutmainna bo eggé ci martaba bobu yalla na la irji delul ci radiyatan mardiya fadxuli fii ibaadi kon kooku la yàlla compté ci ay jaamam fadxuli fii ibaadi wadxuli jannati wax ji dafa xóot dafa gudd mënuñu ko wax ci deux minutes mais li am solo mooy ñun ñëpp ñu dellu ci yàlla waaw dellu ci yàlla nag sa léppay dellu ci yàlla sa cër sa yaram sa xel sa xalaat yow ci sa bopp sa ruuxu ak sa jismaaniya lépp ngay jox yàlla ba mu jeex tag boo joxee yàlla ba mu jeex tag dara nekkatu fa yàlla moo fa nekk ala kulli xaalin mu ngi fii te mu ngi law bu baax a baax Euh, te variant bi nga xamanteni mo gëna sonal nit ñi légui moy omicron nit ñi gis nañ ne euh, gaawaayam wàlle dafa jéggi dayo donc li ñuy ñaax nit ñi daal mooy ñu respecter les mesures barrières incha allahu di sol seen masque di raxas seen i loxo dégg nga de euh, ala kulli xaalin incha allahu rabbi respecter vraiment li waa kër docteur digle li ci des aussi incha allahu rabbi ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu sutura ak tawféex vraiment mbas mi jóge fi loolu rek la ñu mën ñaan rek la ñu mën. gannaaw respecté mesure barrière yi ñàkku ji aussi ñi nga xamante ne war nañ mën a ñàkku euh, euh, kenn du wax kenn ñàkku jil euh, parce que da ngay bëgg nit ki am lu ko dal déedéet boo gisee ñu wax nit ñi nañu ñàkku ji mooy ne dañu wax ne waa kër docteur ne dañu wax ne boo leen ñàkku jee moo gën fuuf ci seen wér yaram que ki nga xamante ne ñàkkuwul. kon xale yi ak mag ñi ndaw ñi nañu dem ñàkku ji respecter mesure barrière yi ñëw nak fekke gamu gi ndax guddi yent bi sallallahu alayhi wasallam lo fa jëlewul rek ci yow la waye du kiñ koy defal yàlla ci bopam mo ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum yàlla neena waxal yoon yoon bi sallallahu wax leen ne ku bëgg man ma bëgg la yegg la xam la gis la jox la sama lépp man yàlla hein da may bëgg man yonent bi topp ma ku topp yonent bi bëgg ko jox ko sa lépp yàlla moo lay yoral sa lépp mu neex la mu naqari la